salaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci dimanche bi fii ci Sénégo TV donc tey ci seen émission Sénégo TV ñu ngi daral euh, Omar Sow muy conseiller spécial président Macky Sall euh, chargé de la jeunesse monsieur Sow ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Sénégo. monsieur xalil Camara maa ngi lay delloo nuyoo bi di nuyu képp ku ñu seetaan ci Sénégo du nuyu Sénégal dunia yëpp. di profiter en même temps di jaalewaat famille yooyu noonu décédé ci accident yi métti yooyu. di ñaan yàlla aussi tamit ñi si jëlee ay gaañu gaañu yàlla fëgg seen bopp et ñi nekk ci lalu hôpital yàlla yëkkati leen. concrètement euh, comme que jot nga ko soulever donc euh, concernant accident yooyu donc euh, seetlu nañ depuis un moment accident yi bëri nañ ci dëkk bi aussi par rapport ak aussi même ak état bi am nay mesures yu mu jot a jël par rapport ak lool mais yow concrètement ban jàngat nga am ci li jot a xew temps yëpp si dëkk bi. jàngat bi ma am mooy gis nañ accident yi métti na lool te li may wax toujours mooy. l' état doit mooy mesures yi ñu jël pour man sax mesures yéex nañ ko jël mais comme toujours euh, dañoo allégé woon mbir yu bëri peut-être mais je pense que la responsabilité elle est partagée ci boor yëpp. Mhm. muy ci côté de l' état que nous sommes et aussi du côté des transporteurs aussi mhm. tamit. parce que mhm. tamit euh, tali boo ciy daw danga war a xam ne. du yow kese yaa ci nekk da nga war a calculer obstacle da nga war a calculer lu bëri donc pour man mesures yooyu état jël aussi tamit euh, force défense sécurité yi war nañ ko aussi taxaw tamit euh, pour que def ay contrôle yoo xamante ne tey euh, dafa war a jaar yoon ba koo xamante ne waroo tegu ci yoon bi nga nga doo ci tegu. ci wàllu wàllub sinébar gis nañ ko ñoo xamante ne dañuy dawal fekk ils sont pas ci wàllu aussi tamit permis ñoo xam dañuy dawal amuñu permis peut-être matewuñ ko peut aussi tamit ak ni koy ni joxee permis mhm. ak aussi visite technique yi ni koy démarrer ak condition mhm. oto yi ak aussi surcharge yooyu yëpp mhm. poids oto parce que oto bu war a jël fukki nit bu demee ba jël ñaar fukki nit ak quelque je pense que tamit loolu ay problème la parce que sur yooyu yëpp ay surcharge yooyu yëpp aussi tamit je pense que dégg nañ keroog gouvernement wax na mesures yooyu nañ ko jëfe donc pour man mesures yi amatul leen lu muy xaar ñu jëfee ko aussi tamit aussi def mesure yi tamit mu yokk ci gaaru ceer yi yokk ci télé yi yéen aussi journalistes yi am ngeen ci rôle bu mag boo xamante tamit tamit war ngeen cee jouer. mais ci mesures yooyu est-ce que amul nga xam ne dina xaw a gàllankoor aussi les transporteurs euh, xam ne aussi actuellement dañu seen seen porte bagage yi dañ koy éliminer bon ñi nga xam ne aussi surtout par rapport ak euh, guddi gi de mën a euh, circuler te ñi nga xam ne si loolu lañu yàgg yaakaar pour mën a dund seen famille par exemple surtout ak actuellement ak contexte bi hausse des prix ak essence yooyu aussi. waaw xam nga je pense que mesure porte bagage trouvé nañ ci solution. dinduñ ko carrément mais dafa am benn niveau. bu muy bu mu toll. Mm. loolu si c'est normal parce que nit ku ne booy voyager war nga mën a yor saak te bii si aussi am nañu ay ay am nañu ay suut ci suuf. loolu aussi il mm-hmm. ñu bàyyi ci xel. Mm-hmm. porte bagage yi dindi woon nañ beneen aussi euh, lu ngay wax noonu vingt trois heures ba cinq heures du matin. Mhm. gis nañ accident yi yëpp def nañ diagnostic te technique yi yoo def diagnostic gis ne accident yi bëri. Mhm. diggante boobu lay xewee. Mhm. donc pour man accident comme loolu pour ci diggante boobu lay xewee. ñu ci bëri xamuñu chauffeur yi day nelaw xamuñu te peut-être yoon yi am na ay gàllankoor moo tax nag ñu préférer prendre ne pas prendre des risques que. Euh, problème koom-koom am moo ëpp ay euh, moo ëpp tey euh, ay bakkan bañ a tuuru bakkan doomu aadama amul lenn lu ñu ko mën a méngale amul mhm. amul lenn je pense que bakkan doomu aadama amul lenn lu ñu justifié mhm. donc pour man mesure yi yooyu noonu lu baax la ça va permettre chauffeur yi noppaleeku mhm. dina permettre aussi tamit contrôle bi aussi tamit bu mën a war a tegu ci yoon bi tamit mën a gën def liggéeyam parce que guddi aussi tamit force défense yëpp mënuñoo nekk fépp mënuñoo taxaw fépp aussi tamit souvent. ok donc euh, Macky Sall face à l'histoire donc muy livre Cheikh Yérim Seck bi xaw a def polémique depuis bi mu génnee ba léegi donc coow li bëri donc concernant un peu mook Sonko concernant ak yenn révélation yi mu jot a def aussi euh, concernant ak euh, le président Macky ak Marème Faye yow d'une manière générale peut-être jot nga suivre film documentaire bi mu jot a produire ban jàngat nga am président Macky Sall a a fait de, je pense que de nouveaux types de sénégalais. Mm. mooy ñoo xam ne waru ñoo wax ñooy wax moom il en fekk moom ci la bokk parce que ñëpp xam nañ ne Cheikh Yérim heureusement il a anticipé ci livre bi mooy bu ma génnee dinañ ma wax sama histoire de mœurs mm. effectivement koo xamante ni tey xale yi bu la doon jàngalee école doo doo exemple tey te tamit ñëpp xam nañ jaar-jaaram Jeune Afrique problème yi mu fa mën lu tax ñu dàq ko fa parce que kenn kenn démissionné donc pour man euh, nekkoon journaliste boo xamante ne tey euh, gis nañu tey journaliste bu nekkoon ci ay chantage nekkoon ci lu bëri pour man il il a il a il n'a fait raconter sa vie et aussi tamit raconter ce qu'il pense aujourd'hui peut-être pouvoir lui faire revenir aujourd'hui ci scène politique euh, ci scène actualité tey nationale et internationale pour le dire parce que un bon moment gis nañ kenn déggatu ko woon ak problème jafe-jafe man pour man c'était une manière de le faire pense que cette fois-ci il a Okay. parce que il faut le reconnaître aussi. Mais... il a été très fort parce que temps yëpp moom la ñu waxtaanee. parce que ñu ngi koy hmm. wax gis nañ ne gis nañ ko digganteem ak Sonko lu mu waxal Sonko effectivement loolu am na euh, mais mosuñ cee nangoo wax parce que le président dafa jugé woon nécessaire que. que nit kenn ko war a suturaal. te suturaal bu baax mu wax effectivement loolu am na parce que. non mais am na benn journaliste bu génn loolu euh, dafa inspiré ci ay faits yi nga xam ne ça date de xam nga li ma wax xam nga li ma wax xam nga li ma wax toujours euh, man ki ma xam ku ma xam-xam du ma wax lu dul naka su noonu. mbir mi am na mention yaa ngi fi police mu ngi fi parce que Ousmane dafa newoon day porte plainte da koy envoyé citation directe. Mhm. je pense que bés donc caméra yaa ngi fii plaque oto bi yaa ngi fii ñi de ñi demoon intervention police bi bëgguma tudd police bi à côté ñu ngi fi. Mhm. te ñi ko ñi ko jàppoon yëpp ñu ngi dund donc je pense que loolu am na leneen li aussi am na lu mu raconté ci wàllu ci wàllu euh, Marème Faye Sall ñëpp nañ ko muy wax ay une mise mais je pense que Khalil. Mhm. nit ku ne aussi boo amee sa jabar. Euh, jabar daf mooy premier conseiller ci nit ko munti doon parce que mhm. loo munti nekk président de la république. lu la garde yi topp lu la motaar yi topp am na moment boo xamante ne yow yow kenn du la ci topp sa biir néeg yow dong ak sa soxna la mhm. donc je pense que te Marème aussi dafa nekk soxna boo xamante tey ku nekk ñaan nga yàlla am ko mhm. parce que soxna dafa nekk loo xamante ni tey moo jiitu sama baay dama koy wax nee na ma ñaan bu nangu dëgg noo ko xamee mooy nga am jabar ju baax parce que soxna moo lay fàttali say sarax moo lay fàttali say mbokk moo lay fàttali lu bëri bon te Marème aussi était engagé même bu ñu nekk euh, dans l' opposition. Mhm. am am ngeen ci ay images. Mhm. bu ñu doon dem place l'Obélisque kenn mus ko fa jiitu da ñëw. Mhm. bu doon dem fenn da ñëw donc engagement am c' était pas soxna c' était un engagement politique. loolu la nekkoon bokkut ak ñoo xamante ne seen soxna dañuy nekk seen biir kër. génnee doomu jaam soxna jàmbur yi wala doomu jàmbur ci mbedd bi ñuy dee donc pour man Marème Faye Sall a montré un nouveau type d' engagement un modèle d' engagement boo xamante ne d'une femme à côté de somar mari donc pour man tey président bu eggee pouvoir euh, ñun participer nañ mais moom mais moom aussi tamit lu ci ëpp solo moom tamit participer te aussi am na loo xamante ne wax na ko tamit dëgg la euh, l'APR tey suñu stabilité APR tamit moom dox da ciy dox lu mm-hmm. que bëggul kenn mere jëkkëram ku ci ku ci am problème dalay woo comme une mère de famille dalay tatala tout le temps elle est elle se préoccupe de de de du parti de beaucoup de choses donc pour man euh, loolu du du du du du du du gàcce jigéen buy bu jege jëkkëram di jàppale jëkkëram loolu du gàcce leneen li nag mooy jigéen aussi moo war a nekk première conseil jëkkëram pour man loolu du complexe surtout dans peut-être euh, suñu société lañ koy xaw am nañ ko gisee mhm. mais il faut que ñu xool président Macky Sall. fu ñu jógee ñoom ñaar depuis lekkool bu muy jàng moom euh, Diourbel. Mm-hmm. depuis boobu président nekkul dara mu ànd ak moom mu accompagner ko accompagner ci période difficile donc kooku tey Marème Faye Sall je pense que tey dañ ko war a defal moom ci boppam euh, jigéen tey nu ñuy jàngalee tey soxna yu baax yi moom tamit soxna boobu war nañ ko joxe cité exemple tey ci réew mi. ok mais est-ce que justifié na aussi par rapport comme ñenn ni ñuy wax euh, que ni am na euh, possibilité di buum di bumi ak yenn. mbir loolu c'est exagéré possibilité di buum buum le pouvoir loolu si exagéré parce que président Macky Sall kenn mënu koo defloo peut-être ku ci nekk ci ñun. ay conseil lañu moom conseiller la première parce que jabaram la mais ku ci nekk ci ñun conseiller la mais dernière décision bi tey moom moo koy jël te jàpp naa ne fu mu jaar a jëkkër ji ba ñu ñëw au pouvoir lépp lu muy conseillé jëkkër ji loo xamante ne lu baax la parce que amaana bu baaxuloon tey peut du duñu mën a résister ba ba ba egg fii fu ñu egg. donc ginnaaw livre Cheikh Yérim Yérim bi gis nañ aussi euh, troisième mandat bi coow li bëri woon na trop donc jusqu'à présent ba léegi débat bi mu ngi continuer donc ba léegi est-ce que yow en tant que conseiller jàppoo ni le président Macky Sall war na yeewi nit ñi wax leen ni si day présenté wam déet. na nekk. Mhm. xam nga mbir. bu ñuy bu ñuy nee bu ñuy wax dara rek mooy ça veut dire que euh, yaa un mun na nekk donc ça veut dire que aujourd'hui le débat juridique ne se pose plus parce que loolu loolu aussi il sénégal que xam ko parce que la constitution a été est très claire dafa ne mandat bi juróomi at la mhm. kenn mënut def ñaari mandat ñaari mandat yu toppalante mais newul li juróom at wala cinq ans. non non non si parce que xam nga dafa définir mandat. Mhm. constitution dafa mhm. comme dafa définir ne mandat bi juróomi at la. Mhm. kenn mënut a def ñaari mandat yu toppalante mais ñaari mandat yu juróomi at yu toppalante la parce que mandat bi dañuy bu ñuy laajte mandat bi ñaata la dañuy ne mandat bi juróomi at. kon da ngeen ah, mu ngi commencé man man mi du ma mais pour man. Euh, la la question juridique bi dañ koy bàyyi conseil constitutionnel qui a le dernier mot boo xamante ne mm. tey mm. moom mun a wax ne kii day bokk di bokk xam nga être candidat et candidat être candidat candidature à la candidature aux élections présidentielles bokkut ak candidat à l' élection présidentielle mm. nous le président Macky Sall nous au niveau de l'APR c' notre candidat à la candidature de l' élection présidentielle ñun am nañ ci droit parce que on est nous sommes des politiques te am nañ ci droit léegi nag lu des mooy ñun ci loolu la ñuy travailler ci loolu la ñu nekk pour que la remobilisation pour que tey nit ñu xam ne tey euh, lu tax ñu indi woon parce que tamit dañuy il ñu fàttali l'histoire en 2012 bu ñuy ñëw ci fekk ci réew mi tey am euh, na am na fu ko fekk am na fu ko yóbbu mm-hmm. parce que tamit gàcceluñu parce que ñun amaana peut-être bu liggéeyul woon tey lu tax du mu nekk ñu candidat ñun tey duñu ànd duñu duñ duñ bëgg mu des ci réew mi mm-hmm. parce que bu dul dara candidature am situation géopolitique bi tey gis nañ tey rébellion Casamance bi nu mu téye côté Gambie bi Burkina Guinée Bissau tey nu mu nu mu meloon tey gis nañu tey Mauritanie bi nu mu mel. Mm. gis nañu tey aussi tamit jaay diis bi nu ñuy avancé côté Mali bi gis nañ tey Burkina tey Faso gis nañ tey dëkk ñuy dendandoo yëpp pour ne pas créer benn benn euh, benn conflit diplomatique euh, euh, incident diplomatique. Mm-hmm. gis nga dëkk yooyu yëpp tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi am ay stabilité euh, euh, tey terrorisme yaa ngi dugg parce que te tamit Sénégal toll na foo xamante ne nekk pays bu am pétrole am gaz pour man rien que pour la stabilité du pays tey président euh, koo xamante ne tey ba mu toogee ba léegi réew mi am na jàmm crise Casamance bi apparemment réglé nañ ko ak yeneen ak yeneen tey conflit yu mu dox tey pour man leadership président dañ ko soxlawaat ci réew mi pour pour dal pour pour dalam pour xam-xamam ak pour réalisation am bu ñu jëlee ci wàllu réalisation yi parce que tamit dafa am fu mu fekk réew mi dafa am fu mu ko fekk en 2012 bu muy ñëw en 2012 fekkoon na xuy xuy xamaj xamaj bi fekk inondation yi fekk tali boo buggee dem tey Touba da koy waaj boo buggee dem tey Fuuta da nga koy waaj boo buggee day dem Casamance da nga koy waaj tey fexe na ba yow booy dem Touba tey dangay mel ni kuy dem kuy ku ku ku jóge ku jógee yëmbal jëm jëm jëm Dakaaru fexe avant tamit même bu jógee yëmbal tamit pour ñëw Dakar c' était tout un problème mais maintenant fexe na au bout de 15 minutes da ngay jógee yëmbal ñëw Dakar mooy terre bi mu ngi def géejuwaay mu ngi désenclavé géejuwaay bi euh, rali raccordé ko au niveau de Dakar donc pour man dem bi dikk bi yemb na euh, tey gis nañu chantier yi gis nañu euh, école yi nu muy kii gis nañu université yi mel ni Cheikh Anta Diop mhm. gis nañu tey tey tey tey train de vie tey tey gis nañu tey économie bi tey ci budget bi tey ci ci ñaata milliards tey la toll ak croissance bi malgré toll nañu ci période bu métti muy Covid 19 bi moo Covid 19 moo ñu moo ñu moo ñu freiné parce que gis nañu en deux mille vingt crise bu am deux mille vingt vingt et un ba ba fu ñu toll nii guerre Russie bi ñëw. Mm-hmm. imagine toi yooyu crise bu amul woon tey. peut-être amaana tey romb nañu fi mais ak jàmbaar la wax dëgg yàlla ci côté yooyu parce que dëkk yi bëri nërmeelu nañu tey bu ñu xoolee tey dëkk yi ñu wër yi bëri dañoo nërmeelu ci wàllu économie dañoo nërmeelu bu dul dara tamit gis nañ tey les fonctionnaires tey nga gis enseignant bu doon fayeeku ñeent fukki junni mm-hmm. nga jël yóbbu ci salaire am pratiquement téeméeri junni pour waxatuñ ko parce que il faut que tamit les enseignants ak fonctionnaires yi ñiy wax tamit dëgg yi ci seen biir kër di wax seen jabar yi di woon seen jabar yi seen bulletin salaire. Mm. pour ñu wone ne mais yow da jàpp ne actuellement kon le président dafa war a présenter man li ma jàpp xam nga man dinaa la toujours Khalil. Mm-hmm. Euh, je politique. man je pas man je mm-hmm. politique ku ci nekk am nga droit ne pompiteer moom gënal pataas. loolu choisir Euh, pur mhm. nangul nañ ko euh, kii nu mu tudd xalifa euh, Sall mhm. taxaw Sénégal mhm. nangul nañ ko Pastef lu tax duñ ko nangul APR parce que tamit nekk naa candidat Khalifa Sall a ngi nii nee na candidat la mais est-ce que est-ce que moom mooy décider wala du moom mooy décider. Mm-hmm. yàgg ci loolu aussi y' a pas de troisième mandat. y' a mm-hmm. koy jëmale moom fu ñu bëgg mu jëm. Mm-hmm. te ci njëriñu réew mi lañ koy jëmale. ci dal réew mi lañ koy jëmale ci lu baax ci réew mi lañ koy jëmale parce que loolu lañ gëm. te ci loolu lañ ànd le reste nag beneen bi mooy lu ma wax conseil constitutionnel moo am dernier mot avant dernier mot bi c'est le peuple souverain qui est le peuple sénégalais. qui mhm. vote aussi il faut le rappeler avant mhm. leneen li mooy dama ciy waxaat toujours ñun en 2012. conseil bu muy validé ñoo njëkk xeex la troisième candidature d'Abdoulaye Wade mais conseil constitutionnel bu mu demee ba validé ko dañoo ne ñëkk gars yi bàyyi leen foofu dem dem baat campagne parce que dañoo gëm suñu bànqaas réew mi dañoo gëm suñu institution réew mi mhm. leneen li mooy gis nañu tey Barthélemy Diaz vidéo yaa ngi fi nee na euh, kenn dootuma xeex la troisième parce que xam nañ am na am na ci droit Macky Sall am na ci droit vidéo Sonko wax na ko ci ay ay aussi nekkul leen di déplacer propos yi de leur contexte non amul amul contexte mhm. amul déplacer propos mhm. yaa ngi fii cassette yaa ngi fii pour man bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu naxasal xelu askan bi bu ñu naxasal xelu réew mi bu ñu ñoom ñooy taal réew mi bu ñu taal réew mi parce que suñu réew la mhm. voilà donc je pense que ñun euh, au niveau de l'APR le débat est clos le débat est très clair c'est Macky Sall qui est notre candidat nous n'avons pas de plan A ni de plan D ni de B. mais concrètement au niveau de Benno Bokk Yaakaar aussi parce que dafa mel ni xaw na am problème tuuti surtout concernant aussi ak yenn alliés yi parti socialiste AFP. Euh, xam nga loolu day wane mhm. euh, lu tax ñu am longévité ci suñu coalition. Mhm. benn Bokk Yaakaar bokk na 12 ans tey 2012 mhm. ba tey ba tey 12 ans. benn Bokk Yaakaar di dund euh, bientôt 12 ans. ça veut dire que y' a y' a une démocratie interne y' a un interne. ça du président rek mooy buum di buumi. su ku ne am nga ci sa xalaat. nangul nañ ko waa PS nangul nañ ko waa waa AFP nangul nañ ko waa réew mi c' est ça la c' ça loolu mooy débat ñun dañu ay dictateur mm-hmm. ñun dañuy débat mais am na fu muy toll. ci débat waxtaan ku ci nekk da indi sa avis ku ci nekk waxtaan mais xam nañ ne on finira par avoir un seul candidat au niveau de la coalition benn c' est ça le plus important parce que yi nekk sa bopp ngir ngir intérêt réew mi loolu moo ëpp solo. mais si toutefois Macky Sall euh, le président Macky Sall présenté wul euh, euh, na ñu ay xam ne war nañ ko mën a wuutu donc selon yow kan moo war a mën a. man nekk après Macky. hypothèse boobu man xalaataguma ko sincèrement. parce que y en a parle de Amadou Ba y en parle <laughs> laal surtout moom sax turam mooy gën a ñëw aussi. waaw mais xam nga parce que bu kon bu turam di ñëw kon nañu sant yàlla moom na sant yàlla sant ay mbokkam mu xam ne tey war na gën a defaraat toogaayam mu xam ne tey ci bokk na ci yaakaaru réew mi te mu xam ne tey président defal na ko loo xamante ne tey amaana peut-être tey bu ko président tabul woon tey ci ci gouvernement def ko ministre des finances def ko ministre des affaires def ko tey premier ministre amaana peut-être leadership boobu du am et aussi tamit mu sant ay waajuram parce que peut éducation moo ko may depuis qu'il est fonctionnaire parce que tamit aussi tamit modèle la bu ko xamante ne tey dépp mu nekke fonctionnaire di di liggéey tamit peut-être fu mu fépp fu mu jaar wane na fa image bu rafet boo xamante ne ba tey ba nit ñi di ko tudd mais moom euh, man ak moom waxtaan nañ tout le temps moom président Macky mooy candidat am donc pour man euh, la ñuy liggéey a a beaucoup de leadership peut-être moom la di ñëw mais y a non mhm. di tour ay tour mhm. pour indi mais mais l'APR est plein de yoo xamante tey peut-être amaana tey am nañu ay cadres yu bëri yoo xamante tey ñoo ëpp xam-xam tey ñi taxaw en face de président mhm. Macky donc pour man mën a faire face a ñii y en a tellement <laughs> plein ñoo xamante ne tey peut-être. Okay. mais ñun tollaguñ ci hypothèse boobu ñun en tout mën a jàpp mooy président Macky Sall mooy suñu candidat. ok donc pour aller aussi dans un autre cadre et donc euh, euh, jamono ji yow affaire boobu naka nga ko jàngatee. xale amul jàngat c'est une affaire entre deux Sénégalais benn Sénégalais ak beneen moromam. kenn ki di jóge këram guddi di dem di dàmpalu ji yàgg nañ couvre fa dem dugg ci léedu de débauche la mën nañ ko wooye parce que nit boo amee problème ndigg doo dem ay du Adji Sarr moo mën a maase ndigg Adji Sarr du médecin Adji Sarr du amul xam-xam boobu mu dem foofu am lu fa xew xew na fa xaw ma lu fa xew mais pour man jàpp nañ ne sénégalais bu nekk tey buñ war nañ la mën a juger sénégalais bu nekk tey boo amee problème justice da nga war a wuyu parce que moom mi di woote tey parce que moom moo ko njëkk wax moom moo doon laaj procès je pense que ñëpp dégg na lañ ko kaset yaa ngi mhm. léegi nañ nañ dem procès mhm. pour man warta am problème mhm. bu ñu demee procès ce sont des faits qui laal là des preuves ñooy tegu bu nekkee amoo loo loo def bu nekk Adji Sarr da laa jiiñ ci caay saay Adji Sarr ñu jàpp ko ne ko rab ci kaso tëj ko. c'est clair est-ce que aussi mënuñ ko may euh, bénéfice du doute par rapport ak euh, yi jot a xew si diggante bi. audio yi jot a génn. dama ne donc xam euh, nga lépp mais fu muy leeree. Mhm. tribunal lay leeree. Mhm. xanaa du du Facebook mooy jugé wala du mbedd bi mooy jugé. xa mhm. lu tax ñu créé tribunal. tribunal pour que mooy boo yoree say buñ la jiiñee yow ñu ne la yow yaa sàcc. xanaa du mbedd bi lañuy ngay taxaw di la. Ah, parce que dañuy seetlu ni comme yi ñu considéré comme ay preuves comme audio yooyu donc. le xam nga bu ko amee loolu bu amee dama ne xam nga loolu may wax dama ne. Mhm. moom na dem présenter loolu sa défense. Mhm. loolu kese du leneen pour man mbir mi jarto woote résistance parce que lu ñu résistance lu ñu wootee mooy ñu ngi caxat caxat alal réew mi courant baa ngi coupé dund gi cher na pour man loolu moo jar a woote résistance. mais damaa demoon sekk xale bu jigéen dara xale bi ne la ma ko violé mu ñu woote problème de sexe nga ci woote résistance pour man Sonko bu mu fontoo Sénégalais bu mu fontoo ban complot attends attends yaay dama ne xam complot mhm. complot mooy ñu jël la loo xamante ni yow yow yow loo xamante ni fekkee woo ko mais yow yaa fa dem yaa fa xam yaa fa dem te dem demoo fa benn yoon demoo fa ñaar yoon demoo fa ñetti yoon demoo fa ñeenti yoon nga fay dem nga dem fa am fa lu fa xew ak xale bu jigéen bi je pense que nañ ci nañ ci génne le président Macky Sall parce que le président nekku ci parce que président bu nekkoon loolu la bëggoon 2019 bu ñu koy fekk ci oto bi dañ koy dañ koy naxasaay. daal est-ce que tu comprends waaw mais te problème lu mu la wax toujours je te fais une confidence. Mm-hmm. Sonko n'est pas problème problème mërsam tey. Sonko mu ngi koy am mu ngi terminal lycée Malick de Thiès. pour bañ a dugg si affaire personnelle. waaw mais je ne non je te parle problème mërs da cee problème mos na yàgg bu muy jàng depuis nekk élève bu mu nekkee aussi au niveau de Gaston Berger la fii marocaine la gis nañ aussi tamit euh, bu mu nekkee enam te pour ma lu may wax ni professionnel bi ma di caméra lay waxee moom xam na lu may wax donc pour man euh, nit boo yàggee di man di di naan di nëbbatu bés boo man di feeñ pour man dafa man di feeñ léegi nag violé nag violé lu fa xew man wax dëgg yàlla man Omar Sow xaw ma dara mm. mais lan moo gën a jekku mooy nga dem wuy ji nga bañ a jël ay doomu jàmm def leen ay bouclier parce que tamit loolu mooy wax ji et l' état restera fort loolu mooy wax seen menaces yi ñuy def di saaga nit ñi di menace nit ñi en tout cas man de sama côté man je sànni passera wax naa leen fu ma dëkk samay soxla dama koy doxi j'ai pas en tout cas daal réew mi dafa am yoon te yoon dafa war def liggéeyam parce que lii bu jàllee mooy ça veut ku nekk ci ëllëg buñ la jiinee dara waroo ko defi waroo dem wuyu ji loolu mooy wax ji ñun am nañu ay mbokk yi nekk ci prison yi man am naa rakk bu ma bokkal ndéeg bàyyi ñoo bokk ndéeg bàyyi il est en prison te pourtant procureur bu ko déféré sama xarit la dem Traoré la tudd mais moo ko déféré pour parce que la justice fait son travail elle est impartiale elle est impersonnelle parce que nit ñi man mi sax mun naa fi génn euh, man ak yow ma tooñ la léegi ñu ma dañ ma war a tëj loolu mooy yoon dëkk nag bu demee ba ba yow ku tudd Sonko ku tudd ku tudd euh, Sall wala ku tudd leneen amul amuñu en fait waruñu laa woo ci yoon ça veut ñi ñun dañu war a tiit ci suñu bànqaasu réew parce que lii jurisprudence la Sonko Euh, Sitor Ndour mu ngi ni dañ ko jiñ viol mu ngi ci mu ngi ci kaso bi. Mhm. am na ñeneen ak ñeneen ñi ñu jiñ viol ñu ngi ci kaso bi ak ñeneen ak ñeneen am na ñoo xamante ne ñu ngi ci kaso bi bàyyi seen njaboot ñooñu ñëpp lu nañ leen def parce que Sonko la tudd rek dañ ko war a dañ ko war a euh, moom kay li ko defal sax bàyyi nañ ko muy muy muy taxawal di wax di di wëndeel di dem di wëndeel dem fu ko neex. mais le reste mais projet bu amee dina wuy ji loolu mm. loolu c'est certain bu ko neexee mu taal bu ko neexee ñu def la mais en tout cas en tout cas li ñu leen wax mooy man li ma wax toujours. mooy ku ci taal benn kër leader ku ci taal benn kër leader cette fois-ci man Omar Sow dinaa taal ñett seen ñetti kër leader. déet bu <laughs> non dama wax lu leer parce que am parce que xam nga parce que tamit euh, barbar yi gënuñu ko subaar yi gënu. ëpp est-ce que woote jàmm gënul aussi. ku nekk di a sa boor sa boor maa la gën a xam. non dama ne jàmm moo gën loo gis. Uh-huh. jàmm moo gën loo gis. jàmm moo gën loo gis te loolu la ñuy ñaan yàlla mais nag bu demee ba egg euh, euh, violence. la violence verbale dañu ëpp gënuñ ko nit ñi mais dañ ñoo yar dafa am éducation bu ñu yar mais bu ñu demee ba violence physique nar a am. mais loolu yàlla sax moo ko santaane ci alxuraan dañuy taxaw jàmmarloo loolu mooy wax ji. parce que tamit lu ñuy concocté lu ñuy def ni yëpp yëg nañ ko on a des informations nous avons des renseignements. ay cocktail mënut a ñuy fatigué euh, euh, intifada bu ñuy bëgg a semé bi mais nañ ko def nañ ko essayé ñun nous sommes prêts. gis bu ñu sànnee benn benn canton mel si benn kër ñett ñett ñoo leen di fekk si seen kër yi leader ku ci nekk muy biram Souleye muy muy euh, comment on appelle euh, El Malick muy kii comment sappel s'appelle euh, le Fula Diomaye muy Ousmane Sonko ku ci nekk ci ñoom ak seen yaay yi ak seen tànn ku ci nekk xam nañ seen kër c'est c'est clair ok donc pour bañ a yàgg ci question boobu aussi euh, rapport euh, Cour des comptes récemment dafa def nañ fi indi woon na fi coow aussi donc euh, épingle nañ fi aussi ay ministères ay directions généraux bon quelque sorte mais soo xoolee bo li ci ëpp ñu ngi jàpp ni gars dañu bëgg sacrifier yenn dages yi au profit de de certains ministres. donc yow ban jàngat nga ci loolu. jàngat gi ma am mooy ci dëkk lii mooy wane ne le président Macky sal nitu yoon la mooy lan. dañoo toll ci ci ci ci ci c'est vrai nit ñi parce que tamit mënuñoo nekk ci ci ci dëkk nit ñi nekk Covid ñuy takk ay masque am ñeneen ñoo xamante ne dañoo gestion dañoo war dañoo war a leeral gestion bi. Mhm. parce que parce que Macky Sall il exige la transparence de tout un chacun. parce que Cour des ñoom ñëpp seen tutelle euh, c' est le président qui moom mooy génne rapport moom la ñuy jëb rapport moo moo ko moo ko génnee. Mhm. pour wane amul lenn lu ñu nëbb ci la gestion de l' état. Mhm. léegi Cour des comptes ay recommandations. ci biir 1000 milliards ci biir 1000 yaay yaayu yaayu 6 milliards. Mm-hmm. duñ ko xeeb. Mm-hmm. mais 6 milliards yooyu Cour des comptes waxul dañ ko jël tibb ko déedéet dafa ne yaayu des problèmes de procédure. Mm-hmm. mooy lan procédure yi ni ko defee waruñu ko woon defee nii nii lañ ko waroon defee ci wàllu ceeb bi dafa ne Cour des comptes dafa ne bu ñuy fixé tonnu ceeb bi ci barème barème bu ñu basé wu barème mu 2014 bi. exemple tonnu ceeb lu mu doon jar. ak bu mu amee Covid 2020 wala dañoo waroon changer arrêté bi. Mm-hmm. mais le ministre du dafa génne note ne mu bi mu ngi jar deux cent soixante quinze mille exemple. Mm-hmm. fekk ñoom bu ñu yor ci bu ñu liggéey ñoom Cour des comptes ñoom deux cent exemple deux cent cinquante mille lañ ci liggéey. Mm-hmm. donc ja Cour des comptes jàpp na ne vingt cinq mille vingt cinq mille yooyu ci nombre de tonnes bu ñu jënd loolu irrégularité la mais Cour des comptes jàpp par exemple lii dañ ko jëndee mille francs waroon nañ ko mën a jëndee ci loolu la nekk. fekk nag jamono jooju gis nañ la conjoncture gis nañ ku ci nekk téye nga sa ceeb gis nañ ku ci nekk euh, nangu dëkk bu nekk amatul importation mais ku de ko ne leen noot da ngeen waroon génne arrêté boo xam ne day fixé prix bu bees gars yi def ko ab note c' est des questions de procédure Moustapha Diop euh, tamit euh, ministère am waa ji Moustapha Diop la tudd le le financier la Moustapha Diop la tudd gars di ko jaaw jaawale ak le ministre bu aide comptable di génnee xaalis parce que boobu tailleur yi ñu ngi ñu ngi def ay masque tailleur yi boobu amuñu ku ñu si bëri amuñu amuñu ay compte mhm. léegi liquidité bi lañ leen doon fayee noonu la demee. am na justificatif mais problème procédure la parce que banque dañoo ne ci état dafa am code procédure bu am bu motee cent mille francs amoo droit retiré ko en espèce. Mhm. mais ci état d'urgence lañ nekkoon ci procédure lañ nekkoon mënoo fekk tailleur bu nekk di ko ne ko di di ko defal ñoom wala nga ne ko xaaral ba suba pour nga ñëw da leen di fay pour que ñoom ñu ñu dem defar masque yi parce que boobu nit ñi soxla nañu masque yi mhm. problème de un million de loolu moo am du leneen et loolu aussi tamit même bu nekkee si président nee na même bu nekkee si jox naa instruction le premier ministre pour que tamit mbir mi leer parce que tamit même bu nekkee un franc la alalu réew mi la alalu askan bi la. Mhm. parce que tamit loolu c'est important. il faut ñu wax ko parce que tamit waruñoo foowee réew mi waruñoo la askan bi parce que ñun jàpp nañ ne tey euh, Covid nu mu méttee jamono jooju metti ñuy wax ñëpp nañu résilient. donc jam wal am na am na ñoo xam ne waruñ cee profiter aussi tamit pour pour pour pour nax sénégalais loolu c'est très juste et ku ci laale koo xam ne laale nga ci problème procédure bi pour que am na leneen loo ci jubloon yoon dafa war a dal sa kaw et c'est tout et c'est clair donc ñu fàttali euh, ñu ngi dalal tey Omar Sow conseiller spécial du président chargé de la jeunesse ñu fàttali aussi euh, responsable politique nga euh, Yëmbal Sud Yëmbal Sud ku dégg depuis un moment yaa mën nañ jàpp ne dafa am benn problème leadership au niveau de Yembol Sud. Donc récemment, vous avez essuyé une défaite avec euh, Benny Donc il y avait plein de responsables, euh, Donc, euh, nagal nga mën a justifier euh, problème de leadership boobu noonu avec les cadres bi ngeen fa. waaw mais problème de leadership ça revient toujours parce que président wax nañ ko ko avec des hommes politiques des hommes qui sont malheureusement c' est une leçon de la vie tey moom peut être am na ci jàngat bu mu ci jàngat. mooy lan boo yoree ay jox la nguur en 2012 jox la euh, jox la euh, majorité encore euh, assemblée en 2012 joxal la majorité assemblée en 2019 2017 joxal la nguur en 2019 yow après loolu nga nga ne ndaw yooyu munuñu mun léegi da leen war a dooleel. Mhm. léegi nag boo jëlee nga nga ne jàpp ne xale yooyu ay xale lañ nga dem dooleel ñeneen voilà voilà tey les conséquences. da nga jàpp ne Amadou il n'est pas politique. voilà non pour man il n'est pas politique il est très bon technique. Mhm. c'est pas il n'est pas fait pour la politique c'est normal nit ku ne da koy nangul li mu mhm. man tey boo ma bëggoon def ministre de l'économie mënuma ko attanu ma ko xaw ma xaw ma dara mhm. mais sama mbir mais politique la parce que politique yaa yaa da koy judduwaale nous nous dans les associations nekk ci nawetaan yi nekk approche de la population maintenant nag da ci dolli ko nga am yenn postures yi nga am yenn responsabilité am yenn moyens pour le faire parce que tey politique bu ñuy wax ci banlieue bi politique sociale la politique de développement la boo xamante tey euh, da am yenn bànqaas yenn levier di mën a recruter jeunes yi ñuy liggéey di leen mën a jàppale tamit loolu mooy wax ji mmh. Ah, jox nañu doole Amadou léegi malheureusement il n'est plus ministre dem na dem il est reparti di ko souhaiter bonne chance ci carrière am au niveau de la BAD. Assome aussi tamit euh, je pense que mu ngi ci terrain bi ci lu ma yaakaar mu ngi ci terrain bi mm. mais kon bu amatul yenn moyen def politique aussi euh, duñ ko def léegi nag mm. ceci à ramener à toujours présent de que nit gëmal ñi ñoo xamante ne tey ñoom ñoo ànd yow parce que ñun àdduna nu neex mu bañ a bàyyi la àdduna nu neex mu bañ a abandonné parce que ñun yow la ñu yow la xam mooy ñun on s'identifie en lui donc ay booyam lañu pour man nous a ñu ko bàyyee nii aussi tamit. Mm-hmm. Euh, sans renforcer ko sans tamit dooleel leen ça parce que chômage bi war nañ ko xool nuñ ko liggéey yooyu yëpp aussi tamit il faut mu am. la des nag leader bi jiitaloo nekk fii donc est-ce que kan nga gis ne saa war na war na ko gën a mën a dooleel mais ñi fa nekk dans gis ne war la war a mën a def actuellement gis gis xam nga dama tudd bu ma tuddee tur dama indi ay conférence pas sax au moins mais le président lan la war a mën a def renforcer surtout son parti renforcer son parti tey na basé waat Yeumbeul Sud ñu ñu fa du ma leen man kese y a beaucoup de gens ñi fa nekk pour être modeste y dañ leen war a renforcer dooleel leen. Mhm. c'est vrai maa ngi féliciter le la nouvelle au conseil Khady Gaye Laye. Mhm. ñooñu tamit c'est bon renforcer na mu ngi indiwaat ñeneen ñu bees léegi nag. benn commune mel ni Yeumbeul Sud oo xam ne y a plus de cinquante mille habitants donc am yoo xam ñu fay yeewoo donc mhm. pour man. tey dañoo war a dooleel gën ñoo dooleel pour que tey aussi tamit que mun parce que loo ko mën a wax Amadou jëloon na fa ay nit ay chargé de mission amoon na fa loo xamante jotoon na ko fa def pour man œuvre de Amadou Hott bi waruñu ko bàyyee noonu lañ ko def na ko fa. Euh, euh, waaw maa ngi maa ngi lay remercier bu baax di remercier borom kër gi Sénégal di di leen aussi ci liggéey bu am maanaa bu ngeen di def di remercier aussi tamit tamit euh, vraiment di aussi tamit euh, wax ne kàddu bu fi jub rek suñu borom la lu fi dëngoo si ñu ngi koy ñu ngi koy jégalu suñu ñàkk mata suñu matadi la rek parce que tamit nit matul mais ñi ngi xam ne tamit toujours lépp lu ñu lépp ci lépp lu ñu nekk ci lépp lu ñu wax ci lépp lu ñu gëm dañoo jàpp na rek ci defar la ak ci bëgg réew mi la parce que tamit ci loolu lañ jàpp leen di aussi di woowaat réew mi ci dal di ñaanal sañ ñu wootewaat ci dal parce que réew ci ci dal lañ koy tabaxee ci dal lañ ko mën a euh, parce boo déggee tey ñiy def parce que dal moo tax boo yeewoo tey dal moo tax donc pour man euh, amul lenn loo xam moo mën a justifier une violence amul loo xamante ne moom mën a justifier tey loo xamante ne tey ce sera une violence verbale wala une violence physique yoo xamante ni war na justifier te réew mi suñu réew la réew mi ñu ñoo ko bokk te kenn ci ñun amul beneen réew boo xamante tey bu taa bu tàkkee di nga fa dem ñun ñëpp tey ay sénégalais lañu te fii la suñu papa yi nekk fii la suñu yaay nekk fii lañu jàngee fii lañu màggee le reste aussi tamit di nuyu waa yëmbal sud yëpp. vraiment euh, waa ausis force OSIS maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu waa waa coalition benn Bokk Yaakaar département de Kër Massar di nuyu aussi tamit euh, techniciens yi yoo xamante ne fee def nañu ba émission bi jàll mhm. di sant waa góor gi di sant di gërëm di gërëm ñëpp vraiment di aussi tamit euh, di wax aussi tamit yi ñi faatu ci accident boobu noonu ñaari accident yooyu wala accident yi fan yi hmm. yàlla leen yàlla yërëm te xare leen àjjana ñi nekk ci lalu hôpital yàlla fëgg seen bopp te yàlla géjal fi yu mel ni ñi faatu yàlla xare leen àjjana hmm. aussi tamit euh, di jaale aussi tamit suñu papa jooju Alaaji Daam Diop hmm. euh, di waajur suñu xarit Modou Mbène Diop Alaaji Daam Diop aussi c'est un doyen à Yëmbal bokk na ñu ñu sos Yëmbal c'est le premier opérateur de kooku itam di ko jaale famille am njoobeen ñëpp mhm. yàlla xaree ko àjjana mhm. te aussi yàlla taxawu njabootam te yàlla desal barke bi ci biir njabootam. ok jërëjëf